Angleterre mooy championnat bi gën a profite ci adduna wala ngal kàpp gars yi coppati leen abonnement yi ñu continuer ci xibaar yi ndànk-ndànk ginnaaw bu ñu leen nuyoo santi leen gërëm leen ànd beeg Aladji Malick TV am na solo ànd boobee yàlla na jëm kanam ci information yu te yi nga xam ne yéen a ko fi taataane xeexee ñu commencé ko ak euh, équipe bi la di Liverpool bu Mouhamadou Salah doon daje ak Crystal Palace daanaka foofee match ba métti woon na nag ndax Liverpool dafa fekke woon waaye nag mu mujj am ndam lu yaatoo yaatu maanaam ñaari bal ak ci benn maanaam Euh, loole ki ca dugal bit ba nga xam ne sax moo war a coow li di Mouhamadou Salah moom it di gone gi tey jii nag moo nekk euh, top 10 ci li nga xam ne mooy fa footballkat yi ëpp lu ñu dugal ay bit fële ca championnat Angleterre loolee daanaka mu occupé fukkeelu place bi di ak njàmbaarte goo xam ne def na ko dugal lu toll ci téeméeri bit ak juróom juróom loole di record boo xam ne daanaka fi mu toll nii record bu ama am solo la ndax benn africain euh, defagu ko ci boobee classement bu ñu foofu ca Liverpool wala boog ñu coppate fa xool fa sax classement bi manees na koo jàppandi bu fekkente ni maanaam mën naa ñu classement bangoog suñu techniciens yi génne nañ ko Liverpool moo jiitu am 37 points ki ci topp di Arsenal ah, nga xam ne match baa ngi daaw am 36 points Aston Villa am 35 points bu demee ci Manchester United nga xam ne tamit daanaka moom it dafa perte léegi nii ci match bi nga xam ne doon na ko doxal ci diggante équipe bi la nga xam ne ñu yaayati ak Bournemouth ñetti bal ci dara la leen yitti loole nag daanaka gardien ba ñu bari di ko ca coow ci xam ni daanaka Billing am na ca ak ki la nga xam ne mooy Marc Euh, si ak kii la di Solanke ñetti bit yi ñoo ñoo ko dugal juróomi minute juróom benn fukki minute ak juróom ñett ak juróom ñaar fukki minute ak ñett ca bit yoo yooyu nga xam ne kon euh, équipe bi la di Manchester United wax dëgg yàlla doon na góorgóor waaye rek affaire yi mi ngi commencé compliqué waat ci moom Aston Villa fii may waxee ak yow moo ma ne Arsenal benn bal ci dara loole tamit match bi danañ ci dikkiwaat bu jeexee ndax loolee euh, lu ñu mën a duut baaraam la bu ñu demee ci Manchester United moom it daanaka sori na ci bopp classement bi wax dëgg yàlla amoon nañ yaakaar ci moom yeneen information ci kanam ñi ngi koy defar ba pare ñu daal leen koy ñëw jox xar bil ci Aladji Malick TV